باسم الخليفة الشيخ سيد أبو بكر محمد المنصور وباسم جميع أسرة المالكية في التواوان نحييكم بالتحية الإسلامية خائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته sëriñ Mahi ñu ngi نيو nuyu te di la ziyaara di sàkku ci yow ñaan di ñaan nga nangul ñu ne gis nañ la yow ci bis bi نيو it gis nga ñu niko maulana Cheikh ahmed Tidiane Chérif waxoon ñu ne len nak ci góor yàlla yi ci tariikha bi bo len gisee bisu aljuma wala bisu altine ñu dem bam yag ñu ne déet ñom amuñ sax ben bis kula yawmin ta xam nañ ne fa haqiqatan anta minhum anta minhum ndax fa anta alxalifa li Maolana Cheikh Ibrahim saahibul fayda at tijaaniya naam waaye duñ ko aj foofu dañ koy aj ci sa xam-xam bu sell ci sa mbaax ci sa woyof bi nga xam ne àdduna yépp ñu ngi koy seetlu di ko seede laylan wa naxaaran te yow yëguloo ko koo tudd sëriñ maax yi rek ci àdduna bi ñu ne xanaa mooy ku woyof ki boroom xam-xam bi ñu di la seedeel ne tafsir yu am solo yi nga doon def ci koor gi yépp ñu ngi koy mutaabaa ci internet bi ñëpp di ko rafetlu nga sagal doomu soxna yépp te loolu wiraasa la te walil waarisi maalil mawruusi waaye nag walil waarisi maalul mawruusi yow nag doo maalul mawruusi waaye maalil mawruusi nga ca sunu maam Cheikh Ablaye Alaaji Ablaye Niass jaar ci cheikhul islam jalore yi mu def ci tafsir alquran ca koosi ba keroog muy ñëw Medina Baay gi sanc ko ci al ilm wa tuqa wal adab wal irshad wa maarifatu billahi loolu bi ko yàlla tàbbalee ci sa loxo mu jógee ca sa mag yu baax ya ba yegsi ci sa loxo yaa ngi koy rafetal ci anam boo xam ne doomu soxna yëpp ñu ngi koy bëggee sëriñ Babacar Sy Mansour nag am kenn ci njabootam ku ñuy tuddee sëriñ Maxtaar Ndiaye al Amin nekk xarit di soppe ci Cheikh Mahi Cissé bu Sidi Aliou Cissé góor yàlla bu baax boobu sëriñ Abdou Aziz al Amin toqantal ko bi mu fi jógee mu nekk ci suufu riayati sëriñ Babacar Sy Mansour yàlla def nak mu amone ben mashra bu reey te moy ubi télévision bi ñu tuddé Malikiya TV nga xam dara taxu koo jóg luddul dul diine lislaam ak tariqatu tijaan ak mag ñu bax ñi fuñ mëna ne sëñ babakar sina a ah dal bala sama xol sedd nga demal ma ci sama kër bay ga sedd fekkal ma fa sama mbokuma nga yóbbul ma bi tek ko ci loxoom wallahi adiya la bo xamne ne nañ ko la na'uduhu shay'an amamakum ndax fi lu fi way fekk rek andi da fekk lu ko ëpp ndax këru barke la kër la koo xam ne borom mu ngi ko sampee xam-xam ak jëfe tam sama malaaji maal dafa wax ne wa in amalan wa in il amalan an kahta ilman tanasala bi mulkin mudaamin laysa fihi awrubu boo jëlee waxambaane xam-xam nga may ko jànq bu ñuy wax jëfe dinañu jur doom joo xam ne nguur gu ca sosoo dootul daanu ba ilaa yawmi diin te loolu mu ñuy mooy li ñuy tuddee pouvoir spirituel bokkul ak pouvoir temporel pouvoir spirituel da ngay judd rek fekk ko fi necc di ci def di ci def ba aaya ba tegu ci sa kaw mooy waaw bu rabbaka hatta kal yaqin yàlla na yéex te yow foofu nga toll tey amuñu benn sikki sàkk ne fa anta xalifatun min xulafa i cheikh na ahmada tidiani sharif kon bu ñu ñëwee ci sa kanam jóge ci sa mbokk ma di sëriñ babacar si mansour al xalifa nee na mu ngi lay nuyu nee na mu ngi lay ziyaara nee na mu ngi weesal cofeel gi dox sa digganteeg moom minal qadimi ila yawmina haza te bi mu fi ñëwee jaale si wane nga ko ci tarxiib bu yaatu bi nga xam ne def nga ko sa diggante ak moom Medina yëpp teeru ko loolu képp kuy jullit di ko béggee di ko sage waaye nag loolu dafa yàgg ndax nettali nañu suñu maam Mbay Ñas ca ca kër ma jëbeel keroog bi mu génnee àdduna Maulana Cheikh Al Hadj a ex Cheikhul Islam ca mbaax ga ca woyof ga ñi fi daje ci borom xam-xam kenn xamu nuñ teel def na kenn du ko jullee lu dul El Hadj da baax ndax kóllëre gi doxoon diggante Cheikhul Hadj Malick Mam Abdallah te yeen mosu leen koo yàq fu ngeen tollu yeen ngoy defar diko la ko commencer ci jaar ci sunu papa As jaay ci papa Hadi papa Nasir papa Cheikh Tidiane papa dam, ñepp kep ku fi imam hasan ba ci imam Cheikh Tidiane mi fi nek ak imam Mahi ak yow sarak yu baax yi fi ne imam mohammedul Amin Imam khuraishi ñom ñepp liggey bi refetna kon tiwaawon yep tay ño am mbégte ñew serigne bi nak neena nga ñaanal Maxtaan jaay ak ñi koy jappalé Cheikh Ibrahim ak xale yi nekk ak moom ci télé bi nga ñaanal télé bi daal fépp foo xam ne fayda atijaan ya yegg na fa télé ba yegg fa man nag duma werante xadru ak dayo bi nga xam ne fayda atijaan ya am na ko sëñ Babacar daf ma yóbbu màkk mooy wër kaaba gi léegi-léeg am benn nit bu ñuul bu ma tàpp ante sénégal yi ma ne naam arifta cheikhul islam ma ne naam ariftuhu fa huwa jaddi ñu ne kon laa budda nga defal ñaan ma déet ñu ne déedéet bàyyi ñes ku ko xam yaay sunu sëriñ ñii jógee Nigéria ñii jógee gana fu ne qadru bobu Baay rek moko am lolou yàlla moko ko may da ngay dem ba ci Kaaba ga ku ñuul rek dañ lay laaj ñun la xana talibé bay nga waaye dal ñu ngi lay sédel na la sa njabot ñoo la siyaar ci tay bég lol rafetul sax ñu yëkëti kàddu ci sa kanam waaye yonent mo tollu non inna rasula bi qadril mursali waaye la tarfau aswaatakum fawqa sawti nabi haqiqatan anta lam taku nabiyun min al anbiya'i waaye wal ulama'u warasatul anbiya'i fa anta 'alimun min akbari ulama'i fi Sénégal kon dañ lay xolé bët bobu di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu nga baal ñu àq jërëjëf papa jërëjëf jërëjëf ñu lay seedeel tamit sa doom ji mhm. Cheikh Ibrahim moom la ñu Cheikh Mahi booleel ba boobu ba léegi amul jàmm yóbbu nañu ca kër ga teral foofu la ñu jullee préparé mu daal di woote ne nañ ñëw ngeen ki sëriñ bi léegi kon moom it ñu ngi la koy seedeel parce que boo demee kilifa ànd ak moom ci njaboot mu liggéey liggéey boo xam ne daf ci wuutu àddara bi yëpp dafay jaadu tey ñu seedeel la ko sa kanam jërëjëf Niass Niass jërëjëf Niass بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أه نحيي هذا الوفد الكريم القادم إلينا من موفد كريم أه جاء لزيارة إخوة لهم في الله تبارك وتعالى وجاءوا أيضا أه مواصلة بالأمس معها اليوم لأن علاقة الأمس مع الآباء والأجداد هي علاقة اليوم مع الأحفاد والأبناء ونسأل الله تبارك وتعالى أن تكون علاقة مباركة طيبة تنتج هذه الأعمال الصالحة الكريمة التي قصد بها وجه الله تبارك وتعالى تبليغا لدعوة رسول الله كما أمر بلغوا عني ولو آية وتوكيدا على سير العلماء الراشدين الذين اقتدوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتدوا بهدي العلماء الصالحين الذين مروا على هذه الأمة دليلا على أنها أمة خير وأمة بركة كما في القرآن الكريم كنتم خير أمة أخرجت للناس إذا فإذا جئتم من بلد كريم ومن قوم كرام ومن إخوة في الله تبارك وتعالى عزيز أمرهم في نفوسنا وعزيز أمرهم في قلوبنا فنحن حقا لا نملك كلمة مهما بلغت أن تعبر عما نشعر به من سعادة لقائكم ومن سع ومن ومن سعادة سماع ما نقلتم إلينا من الخليفة ومن صاحب هذا المشروع زادكم الله كرامة وزادكم رفعة وبارك لكم في عملكم هذا الذي يبتغى فيه وجه الله ورضا الله تبارك وتعالى ونشرا للخير ونشرا لنور ونشرا للدين خاصة في هذا العصر المتلبد بأشياء آه، تيارات كثيرة مختلفة كلها تقريبا تدعو إلى هدم الدين وإلى هدم الأخلاق الطيبة التي ورثناها من آبائنا وأجدادنا فإذا حتى قام شاب من شباب السنغال من شباب السنغال ومن شباب الفيضة التيجانية الفيضة التيجانية ابتدأت من الشيخ متيان حتى ظهر الشيخ في الشيخ رايمة فهي الفيضة التيجانية ظهرت منهم مثل هؤلاء الشباب الذين حقا لهم غيرة على دينهم حتى لا يبتزل كما تبتزل الأشياء الأخرى فأخرجوا مالهم وحياتهم جهادا في سبيل الله وذلك ما دعانا إليه القرآن إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فهذا الجهاد بالمال هذا هو وهذا الجهاد بالنفس هذا هو ابتغاء مرضات الله نرجو من الله تبارك وتعالى أن يتقبلها وأن يباركها وأن ينشرها انتشار الشمس وانتشار الليل والنهار إن شاء الله في جميع العالم مع البركة والثبات والتوفيق فيما يرضي الله ورسوله وكما قلت لكم آه، لا أملك حقا كلمة تصل هذا المقام الرفيع الذي جاءنا من تواون وطالما جاءنا مثل هذه الكرامة من تواون ابتداء من من من سلفنا الصالحين شيخ عبد العزيز آه، عرفناه هنا كثيرا عبد الشيخ عبد العزيز دبار وعبد العزيز الامين الذي حقا كان يكن لي محبه خاصه آه، كان يكن لي محبه خاصه حقيقه وكان يفرح آه، لما لما آه، اذا التقينا في مكان ما يا شيخ يا ماحي الكفر تعال امح لنا ذنوبنا <laughs> ف نشكر الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء الكريم في هذه الايام المباركه ايام العشر الاوائل في ذي الحجه الشهور أيام مليئة بالخير مليئة بالبركة ولكن للمسلمين المؤمنين بالله تبارك وتعالى نرجو الله تبارك وتعالى أن يخصنا من بركات هذه الليالي المباركة في حياتنا وفي أعمالنا وفي أنفسنا وفي أولادنا وفيما يتخلف منا إلى يوم القيامة بحول الله تبارك وتعالى قرم الشيخ جاي برم تلفزيون بي مختار Makhtar حقيقه خوايم ci ci dëkk bi taxawaay bu set la taxawaay bu sell la taxawaayul baxs anil anil nuur anil xaq boo xam ne yaakaar na ñu bëri itam yaakaar nañ ne loolu rek mooy wasilatul insaan li najaati bi nafsihi min azabillahi fi dunia wa min azabillahi fi l axira te foofu rek la mun a nekkee place yu yàgg yu set yu sell yi euh, mos naa koo wax ci ak Abdou si Cheikh Abdou Amin ah Abdoul Aziz Amin ma ne ñun doomu aadama yi dañoo yàkkamti rek di tërax tërax yi mais liñ yàkkamti yàkkamti yàlla may nañu waxtu wu nekk benn porox ndollu boo xam ne buñ demee ba sës ci war nañoo dem ci porox ndollu boobu seetaat suñu bopp porox ndollu boobu mooy nit ñu sell ñi toog nit ñu baax ñi nit ñu kawe ñi nga xamné yàlla rek mo leen taxa a jóg bëgg nañ yàlla di ci def seen lu nekk di ci def seen alal di ci def seen dundu di ci def seen temps yëpp ndax lan dañoo bëgg a bokk ci yi nga xam ne yarfauna kalimat allah li an kalimat allah hiya alulya wa kalimatu alladina kafaru assufla foofu lañ bëgg a gis seen bopp ci kawe googu lañ bëgg a gis seen bopp ci kawe googu lañ bëgg a xamee seen bopp ci kawe boobu itam lañ bëgg nit ñi fekk si leen ci moo tax lépp loo xam ne dina sawarloo nit pour ñu fekk si ñu fekk ko ci yëpp mu ngi koy tàllal télévision ñëpp a ko bëgg hmm? ñëpp koy seetaan euh, te télévision boo xam ne nag li ko tax a jóg mooy ne lislaam moo ko tax a jóg d'abord l'islam kas fii Sénégal daanaka mazhabu Malik ci la ñuy xamee l'islam ci Sénégal daanaka itam ñu ngi koy xamee ci mashayixuna شيخ الطرقي الذين أسسوا لنا هذه المعالم العرفانية الجميلة بوخمنا أدنى بيه بيتم نانغونينكو بون فوفو دق دق أي بروخ دولو لا يوخمنا يالا مونيو كو دفل بو دمي با أدنى سي سون الله دول دوكو شي بروخ دولو يوي بيان بلاس توك دمال دوكو شي وسفوي توك تيل سو كروس توك آه، تدو يالا جوليش يونان تنيان يالا آه، دمال شي نيت نيو باخ نيغا خمنا خمنا أي نيو باخ لنه boo demee doo fa jëlee lu dul dolleeku doo fa jëlee looy looy réccu doo fa jëlee looy perte yooyu yëpp mooy porox ndoolu yoo xam ne yàlla moo ko may jullit ñi yàlla moo ko may jaamam yi waxtu woo xamee ne àddina sës na ak moom jafe-jafe rek mu ne ko toogal foofu maa ngi dem ci sama porox ndoolu ba hmm? maa ngi ci sama porox ndoolu te bu demee du fa jëlee lu mooy hadal fadlul kabir parce que borom alal xelaatut ci alalam nu mu gën a rëyeeg nu mu gën a rafeteeg nu ko nit ñi gën a giseeg xalaatu loolu te mën nga ko waaye naa ko xalaatee ci inna allaha ishtara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi an lahum aljannata yuqatiluna fi sabilillah wa hadha nawun min alqitali fi sabilillah وهذا نوع من الموت في سبيل parce que lu dul yàlla rek jëndee nga lu dul yàlla lu dul nekk rek jëndee nga ko yàlla jëndee nga yàlla àddina jëndee yàlla sa bopp jëndee nga yàlla sa famille jëndee nga yàlla sa réew <coughs> yëpp jox nga ko yàlla bon dëgg-dëgg kooku tawfiqun min allahi tabaraka wa taala ak ku yàlla jàppale teg la ci kaw yoon dono yu ko jar la dono yoo xam ne jumaa jaa ngi dono yoo xam ne kaamil baa ngi dono yoo xam ne hadisu rasulillah ngi dana yoo xam ne Cheikh ma Tidiane a ngi nii ci suñ biir di ñu ommat ñu ngi ommatu ci gannaawam lu ñuy ommatee du man maay Cheikh Tidiane si tu yonent waaye man maay Cheikh Tidiane astaghfirullah laa ilaha illallah allahumma salli ala rasulillah loolu la ñuy ommatee waaye ommatee wu ñu juddoom ommatee wu ñu euh, boppam ah yooyu yëpp ngëneel yu kawe yooyu yëpp nga xam ne yàlla moo ñu ko may ah, ñu ngi sant yàlla ba pare nga di ci def sa ngóor sa sa و وطريقة التجارية والناس الكرام اللي خمني في السنغال فناك فودم لك دين فاك بين رقبة خمني فريمون دنجي جسمي ماغي كاينتو لو خمني مسما موم لا كاينتو تا مستا تاغو سما بكام فودم شي اي رقبة دنجي فاكاينتو لولو ها أه، تدول يب غنيلو يالا ماي السنغال لا غو يالا باركيري لا ناخ السنغال ريو من اموت اموت الال اموت صح خم ah waaye terewul gis nga yàlla màngal na ko Afrique yëpp Sénégal la ñuy ah la jublu si Sénégal la ñëw Sénégal lañ gëm ci seen xol ne buñ fi ñemee taseeg yónnant hmm? loolu yëpp ngëneelu yàlla la boo xam ne yàlla may na ko Sénégal yàlla nañu ko yàlla saxalal bu baax a baax non oh, munuñoo munuñoo fàtte dëgg-dëgg alaaka comme ni ma ko waxee xalifa bi fi ñëwee. yaa ak sëñ du du du la première fois ñu dégg ci yéen ay irshadaat du la première fois ñu dégg ci yéen ilm du la première fois ñu gis ci yéen alfadl du la première fois ñu gis ci yéen loo xam ne cawartaane pour dekkal ci diggante nit ñi li nga xam ne moom la leen yàlla sant innamal muminuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum ba tey loolu ba tey mooy mooy jotaay bii rek ah قنال فضل ارشاد تعليم توجيه تثبيت آه، قول الله تبارك وتعالى انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم آه، تكتل باغيني يفجاغيني نياغيني يب لولاي تكتل لولاي يكتي يم يالا يكتي لين يم يالا نانغو ليغي بي تي نكو يالا بيتشك بي اغ رك يا ah ñu ne yonent nee na sallallahu alayhi wa sallam fu jant bi tiim rek sama oote bi dina fa àgg Cheikh Ahmad Tidiane ne fu ooteem àgg rek sama tariqa dina fa àgg ah góor ñëpp itam wax nañ ñëpp itam wax nañ alors mi ngi nii télévision bi àgg na fu nekk ah boo ko ubbee seetaan ko Amérique seetaan ko Australie seetaan ko un peu partout te mu ngi lay waxal ci Allah al al malikiya at tariqat tijaniya ngëneel bi doomu aadama di ut yëpp wala dina la ko dajaleel ci écran bu ndaw bii ngay jàkkaarlool ah ñu ngi ñaan yàlla bu baax a baax ñu ngi gërëm bu baax a baax seen taxawaay bi eh, xar bi yaa ngi wax ni tuuti na mais waa Mérina yëpp Kaolack yëpp ci incha allah ci li ñuy tabaski bu soobee yàlla ndax ndax daj na Kaolack yëpp itam ah yal na yàlla fay yàlla taxawu leen yal yàlla barkeel leen yàlla yokk seen ngëneel bi jaay <clears throat> <clears throat> kan gan Cheikh Azou ah wa waaw waaw ah ndeysaan wa ño bokon di jang xaaxira ño bokon di ah. xaram la ñu yóbbu ci ah ah yow ndeysaan ño bokon di jang ño bokon di jàng ma sha allah deug deug la non la non la lool la lool moy loolu kër gi. waaw dafa am ben bés abdoulay dama dem dem Alger ay wadi mangi maa ngi dend ak benn sut Cheikh matiane ci avion bi. ma ne ko waaye sa manto bi dafa rafet ah ko sa mant bi dafa rafet mm-hmm. waaye waxuma dara dafa noppi tontuwuma bañ demee ba àgg fañ jëm fi ma dal benn waay ñëw indi benn saak daal di ko ubbi ne ma mant baa ngi nii ne ma bi moo la ko jox mm-hmm. ma nettali ko laaj waaye mu ne noonu lañ mel ñoom ñëp sëriñ yëpp noonu lañ mel ah lu nekk ci ñoom lu du safaan rek nit ñee ko ci def waaye ñoom ñëpp mbaax rek lañ xam ah mbaax rek a nekk ci ñoom bëgg lu baax rek a nekk ci ñoom ah jërë ngeen jëf ci seen visite bi macha allah tabarakallah jazakumullahu xeyran mara nañ ah, marabu jëf ci kàddu yi rafet na ñun tamit lii lañ doon xaar ne dinañ ko fi fekk fekk nañ fi lu ëpp sunu njort yow moom ku la xam-xam ne sa lépp xam-xam la waaw sa lépp xam-xam la yal na la fi yàlla yàggal amuñu leen lu ñuy wax lu dul téeméeri ci kanam daal yàlla na la fi fekk yow daal ne fi rek yàlla na nga fi ne rek yàlla nga mucc te incha allah ci sa barke maam ci sa barke baay barke Maolana Ahmad Tidiane sëriñ bi daal noon na ma soo demee neel Cheikh Mahi nettalil ko bayit bi ci kanamam laa tey a sanna wa in taala suduudu waqat yuj fa unaasun wahum fi sirri ahbaabu loolu daal moo tax sa digganteeg moom fu mu mën a toll rek xelam mu ngi ci yow maxtaar tamit dina fi ñëwaat seet si la boppam dinaa ànd man ak moom Ibrahima ba ci yow nga xam ne sa doom moo fa nekk nee na yi télé bi lépp loo ci bëgg rek wax ko ko te incha allah am nañu ay programme yu ñuy am pour yoo xam ne ci cheikhul islam la liggéeyam ak li ci aju yëpp wax naa ko ne nañ nañu gëstu mbooleem téere mag ñi fii fi cheikhul islam jaar yëpp ba ci koosi lépp bëgg nañ ko jël def ko programme ci télé bi te lépp ci sa ndigal la taatara ayatik nee na it xale yi koy jàppale mu gon na nga ñaanal lañ bu baax ndax sonn nañ ci moom ak cheikh ibrahima bi waa kii maamam moo daan wéyal Seydi Hadji Malick burdu bi mooy góor gi Moussa Ale Mbaye waaw képp koo gis muy wéy Tiwaawan rek moom moo ko meññ Moussa Ali Mbaye moo jur Maodo Mbaye mu jur ko bi maam Alaaji Maal di ñëw Tiwaawan jógee Ndar hmm. benn nit rek la àndal hmm. muy maamam kese ku dul maamam danga ngaa fekk si Maodo waaw Cheikh Ibrahima moo nekk nii nga xàmmee ko sa njaboot la waaw jërëjëf Mbaye wallaay dëgg la zuriyatan wallaay ndax dëgg la sa mbokk ma si Abdou Aziz Serigne Serigne Babacar si Abdou ah, ah. mayor daara ja moom it nee na mu ngi lay nii ndax yéen bokk mission <laughs> yow yaa